المسارعة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون به ولقد أنزلنا إليك عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون فلما الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم ما نحن فتنة فلا تكفر ولا ñu jege jullikaay bi tey bañ a fàtte yi ak si jaare yi mooy mille quatre cent quarante mille quatre wala yóbbaale na ñaari yëf lu ñu waroon a def te defuñu ko lu tax par négligence par ignorance maanaam càggante wala wéer yàlla nañ ko yàlla jéggal waaye it lu ñu warul woon def te def ko ak a bari ce n'est rien d'autre que adorer Dieu yàlla waxaat ñu ni sootul mulk xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yàlla dafa bind dee d'abord soog a bind dund ngir xool ku gën a mën a def si ñun jëf ju baax mbokk yi événement bi ñuy dund mu di iidul adha aw iidul kabir muy tabaski liñ si waroon a wax yëpp ku déglu réseaux sociaux yi dina ko dégg tey bisu lekk la bisub naan la bisub feetu la waaye bisu tudd yàlla la nan la ñu tuddee yàlla mbokk yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira mbokk yi nii la ñu war a yendoo bakk bi day wane ni liberté am na am na parce que yàlla def ko ni woon qui vivra verra la victoire t'appartiendra tey à part fële si Chine si benn région fu neex waay taxaw kabar julli nodd mais ñun nañu def taxaw seetlu si li xew si année bii ñu génn li si gën a fees bokk na si coronavirus conséquence su ñàkk dégg ndigalu borom bi la borom bi dafa waxoon ni fa imma yatiyannakum minni huda مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى mbokk yi yàlla def ñu fee indi indi ak njub indil ñu ak njub mu di alquran ak sunna mu ni ku si jaar doo sànku te doo réer boo demee fële si baqara mu ne doo tiit te doo ragal waaye buñ ko wanee ginnaaw bu ñu ko wanee ginnaaw dinañ dund dund gu xat gu bari jafañ-jafañ mbokk yi crise yi bari na crise yi bari na crise sociale kër yi ñu ngi tas crise économique crise spirituel booba si gën a doy waar booba si raglu booboo si gën a raglu yal na yàlla dimbali ñu ba ñu teguwaat ci yoon ndax boobu li muy jur si conséquence mooy نقول لين أي لك نبي يبقى يدكم مبس والتسليم أنت عندي فعل إندي إندي تقول أبين تنقفل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 محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تهافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتقا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا الله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 الله أكبر الله